daanaka jumla bi may faral di wax rek damay wax ne lisanu halil jalsa ablaq min lisan maqaliha gis nga jataay bi nu tok lisanu halam mo gëna leer fouf lami yi ñuy waxe lisanu hal bi moy jataay bi xam la ne ne njabotu seigne touba gi nek ci kaw yegg nañ ndono li nga xam ne moom lañ leen donale yëg googu ñu ko yëg nag ba taxawee ko nar koo yëgal njaboot yi topp seen gannaaw ma ne lisaan boobu moo gën a leer lisaanu bu ñuy wax ci làmmiñ ndax yëngu bu waaye mën a yëngu fii te fekk na ñu donalee fi yëguñ ko yëngu booba day mujj kon yëg gi nga xam ne yëg nañu ne seen ndono lii ndonol Sëriñ Tuubaa li la ñu yëg ko taxaw ci ngir fas yéene ko jàllale fa ko seen maam bëgge woon ma ne loolu day moom dara gënu ko réy dara gënu ko neex sant nañ ci nag bu baax a baax fii nu toll nag dañoo toll ci jamono joo xam ne ubbi xel yi dafa baax lool waaye am kilifa it nag jot na fa kullu man adima sayxan mursidan fa sayxoo saytaanu ay ay su xasada nit ko amul kilifa ku ne saytaan yi mooy sa kilifa jot na nag nit am kilifa jamono bii nu nekk nag ku ci amul kilifa gis nga gaay yi taxaw ndax kat yàlla dafa wax ni wa li kulli xariyatin akabira mujrimiha akabiri mujrimiha nak koku firé ku may ak politiciens xamoo ki mi wax akabira mujrimiha koku firé ku may ak politiciens nag xamoo ki nit ko xamné limi wax du bok ak limi jëf lim gëm bokut ak lamuy waxé limi fëñal bokut ak lam neub kooku boo ko tuddewul akaabira mujrimiha xamo tak yalla yo kan te lepp lo gis muy yak ci société bo demee da nga fekk ni politiciens ñoko ñoo mbolem politiciens yi ngi gis yi kep ko ci xamni ki jarna tax nga woyofal sa kilifa wala nga woyofal sa diine sa bis nga ñew na ñom ñoom de fu taxaw tay bu suba bo ñëwee doon fekk ñoom te lo xam ngeen gis nga xam ngeen ci dara kon nak li war na ubbi suñu xel yi bu baax nu delluwaat nag ci sun kilifa yi deglu len ta xol len tayam yem ci ñoom kon aduna ak alaaxira fi nekk wabtaqi fi ma ataaka laahu daar alaaxirata way wala tan sa nasibaka min addunia alaaxira mom, la la ci war dang ko def way bu mu tax nga sàggane sa dunni mi ñi nak ñi nak delo nañu ci gannaaw la taxoon seigne touba ñew la taxoon seigne touba mer ba tax mu futti ku won taxaw taxaway bi mu tak ndigam préparer jamar gi fi yépp ba daan leen taxawal lii ci diir bu gàtt la taxoon mu di ko def ma ne loola dellu si waat dafa mel ni sax tey la ëpp doole boobee Moussa Kanaan lislaam di jooy yikkat ba génn gàddaay ci sowu ka ci sowu mel ne ak daay ak daay waa mel ne ak daay <laughs> ci sowu jant ak fépp mel ne ak daay loolo <laughs> loola dellu si waat nag ndax ndax ginnaaw kaa nga ki fóore kaa nga ki fóore sax di jaani lay la waxoon kaa nga ki fóore luy kaa nga ki fóore di jaani day mooy dëkk bii di tuuba sëriñ saa ngi nii taxaw woo mbooloo mi fas yéene waxtaane diine ji wax fas yéene leeral mais mboolu politiciens yii ñëw ci seen i kilifay diine la ñu jaar jox leen alal ñu jaar ci seen kaw yàq li ñuy def te duñ ci mën dara te loolu man xam naa ci lu ma leer xam naa ci lu ma leer am nañ am nañ yéene yu baax am nañ bëgg-bëgg bu baax waaye am nañ nag ñu leen supérieur ëpp leen kattan ëpp leen doole man leen te dañuy jàkkoor la président di wax ak ñoom di wax ak nguur gi di jël xaalis yi di ko lekk di def leen neex te ñi duñ ci man dara waaye wax nag moom sëñ bi def ngeen ko seen jaan wàcc na leeral ngeen doomu aadama yi wan ngeen leen yoon li ñu wax fii lépp nag dégg ko sëñ Tuubaa seen sëriñ dafa am lu leen wax dafa wax ne xultu وقد حرم ربنا على كل مكلف على ما نقل فهلا بخير هلمه بصري في فصل نص الدليل القطعي من كان جاهلا بفرده ولم يزل فنفسه أبدا وسلم سيد جبال نينا يو يلا دفلا أرامل يو ميبو مبير مو يدف منه سو خمي خمو خمو لجا يلا عطي تي بير ما سيد جبال نينا لول دفا أرامل تيو نغا دفكو كو خمني خمو نك لا جوك خم موسى كنين من خمو مولا يمو dëgg la kon mbooleem li ñu fii lépp mooy kon day tekki lii ñu tëral nii man xamuma ko yéen xamu leen ko réew mi xamuñu ko kon li muy tekki mooy su sëriñ nee na loo xamut na ca teey kon na ngeen wote way ba ba non ba ba ngeen koy xam na ngeen wote non ba ba ngeen di xam lii lan la na ngeen wote jërul laq-laqal jërul nëbbutu jërul dara na ngeen wote non parce que xamuloo ko sa sëriñ nee bu def loo xamut du caagee ne da nga contre Macky Sall du kan da nga contre kenn da ànd kenn sa sëriñ daf laa wax ne lépp loo xamul ab atteem ci diine bul ko def te yéen xamu leen loolu Macky Sall na kero ba mu ñëwee fii ba Obama ñëwee fii dégg ngeen la ma ko waxoon ba Obama waxee ba noppi daf ko ne pour la moment ma ne ko mooy ñuyit nag pour le moment ak si nañ ci nag tey na ma ne bis bi dana ma ne ko pour le moment nga wax dégg nañ la de mais nu it pour le moment ak si na nag tey pour ñëw na li ñuy wax ci biir lépp a ngi ci am leen fayda ju tol ne am leen fayda ju tol ne kuy doyadal diine kuy doyadal diine baa nga di ko manqué waroo bokk nekk ci ëttub sëñ Tuubaa bii moom sëñ Tuubaa mii waroo nekk ci ëttam bii feneen nga ko war a nekk waaye ëttub sëñ Tuubaa bii kuy doyadal diine waru fee nekk ndax itam kat xusóor yi xalat wal ahlu an nii tafarraqat bi mat yi lës yi anul ma diyu xasi sëñ Tuubaa taxaw ne ah walay sama kër tas na sama njaboot tasaaroo na ñàkk naa li ma amoon lépp dara warulu ko lu may yàlla ak yonente yàlla ko yonente kooku kooku kenn du ko am kenn du ko am di ko doya di ko jënd yu ñàkk fay di yi yéen nag dama bëgg ab murit ab murit day am fayda sëñ Tuubaa nee na murit day am fayda day farlu ñett yi la wax sëñ Tuubaa nee na murit day am fulla murit day am fayda mu day farlu nee na fulla mooy lépp looy def nan nga ko seet ba sa njariñ nekk ca nga doon ca dugg nee na fayda mooy lépp looy def boo dee ba sa njariñ nekkatu la nga am fayda taxaw farlu mooy looy def wutal ko waxtu bu jotee nga defi ko kon am nañ ay kilifa ñii de wane nañ yoon te xam nañ ne wane nañ yoon bëgg nañoo liggéeyal Sëñ Tuubaa tam liggéeyal Sëñ Tuubaa jamono bii nag day laaj xam-xam day laaj alal day laaj doole day laaj xel day laaj waxtu day day laaj temps day laaj lépp kon nañu àndandoo kilifa yii wax nañ nag baat boo xam na ngeen ci bàyyi xel nee ñu nee ñu ndigal amatut waaye gis nga bu ndigal amatut bu ndigal amatut xam leen ne yéen yéen ay rab yi ñuy rëbb te dañ leen jàpp yéen xam sëñ Bay Jaxate wax ne xam ngeen la tax rëbb baa jóg Rombu bëy wët yi gis rab dal di fetal am sàmm ga ko waral gis nga mune xam nga la tax rëbb ba juk rombu bëy wët yi gis rab dal di fetal am sàmm ga ko waral am ma tax bëy wët wut waaye ñàkk sàmm waral kewel na janjang te kenn néewut ki ray lu waral kep ko ci xam ni wax nañ leen bul am kilifa ba nga nangu ko mom mi leen bul am kilifa xam nga nu mel ñetti nagge ya, ñetti nagge nak ya nag bañ àndee gaynde gi bëgg leen lek te xam mënul leen dara dafa ñew ne nagu lu yow mi kat dafa wax ñaar ñi ne leen nagu ñu lu kat da ngeen xam ne bu ñu ànd ak ñom bëccëg mo ñuy feñal bayi leen ma ray ko ndax laay bi ñu ne ay ci mu dal di koy ray dal di ñëwaat ne ne ne ne waxong wi eh, wex wi kat xamal bu guddi bu guddi bu wexay weexaayam bi moo ñuy feñal bayi ma ray ko mu ne ay ci ba ci lu ma ñew ne ka ah, yow bettu ma la du ma yow du ma lay sama diggante yow mu ne ko bayil ma wax mu ne ko mu ne mu ne ko waxal mu ne ko ba nga lekke nak mu jëk wa nga ma lekkon <laughs> waaye gis nga serigne bi li ngeen def lu baax la si am satu <coughs> am nañ seen yaakaar ñoo leen di bàyyi xel waaye boo defee na ngeen leen di bàyyi xel baax ndax ndaje mi sëriñ lu ko gën a rëy amut fu ñu ko defee baax na waaye ñu defee ko Touba nag dañu xam lii ban poids la amee danañ xam lan lay tekki wante man di lenn rek laa ci laa ci ragal sump ga de ba ko law ba gàjj si ñëw yor ak weñ daaree ne ko ne kii moo ñàkk fayda rek mu dem andi am riis mu ne kii mu ñàkk fayda rek lu ne mu andi ko mu ne mu ñàkk fayda rek waaye ba mu ko séenee muy mu yor sump sump njuru sump di ñëw mu ne dee naa de sama mbokk nga ne di ñëw njur njuru sump ba mu ñëwee séenee yor mu yor njur wi moo xam ne njuru sump la njuru sump gi ne dee naa de ceede bu ñëw may dee loolu rek laa ci ragam kon yéen ñi nga xam ne ay député ngeen ay député ngeen tey ay julit tey dem fa nga xam ne fa la ñuy watee rawatina yéen ñi dëkk Touba ngeen di dem fa ñuy watee dégg nuy wate loolu bu ngeen ko xamul ngeen jàng ko bu ngeen ko xamee ba noppi dem ba foofee ñuy wate lii tam wóor leen du dëgg xam ngeen li ci nekk ngeen nangu ko bu keroogee bu yàlla taxaw yi ngeen taxaw Sëñ Tuubaa taxaw bu keroogee yéen lu ngeen di wax su ngeen àggee lañ fay wate xam ngeen ko koo ci xam ni kii mënaloo leen dara it na wax noo ba ñëpp séen la ñun ñi la yebaloon ñu xam ne noo nga wax bu keroogee ñu xam ne yow si jaan wàcc lu loolu na ku ko def loo def lu rek war nga yàlla war nga yónent bi war nga sëñ Tuubaa mi nga xam ne moom la ñu lëkkal wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf